Sarr naan ñi njiitu réew mi di bëgg naa teg ab gouvernement bu yees waaye nag du yomb benn yoon ci mooma yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu commission bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum recensement vote yi tey jii danañu publier li nga xam ne mooy résultat provisoire yi yéen a kaay gi di la témoin nee na résultat yooyu nga xam ne tey jii la ñu koy publier ñi nga xam ne ñooy waaw yeewee askan wi ñoom nag dañoo sàkk ñu daal di koy dàq maanaam ñu dàq li nga ne mooy publication résultat provisoire yi tey jii yéen a kaay gi di direct news xëy nag sampab laaj moom journal bi direct news nee na Macky Sall lan moo tax maanaam kër kilifa diine yi dëkk yi nga xam ne daal ay kër kilifa diine lañ lan moo tax Macky Sall daal di koy ñàkk maanaam cité religieuse yi journal bi fi nga ne mooy Touba Benno Bokk Yaakaar dañ ko fa daal di écrasé maanaam dóor yu métti métti la ñu fa dóor Macky Sall coalition Benno Bokk Yaakaar yéen na tamit ba ci diwaanu Tivaouane foofee maanaam Diop si ma nga ay meeru ñi nga ma nga fa Abdou Ndéné Sall waaye coalition Yewwi Askan Wi dafa écrasé ñi Cambérène ak kene ba foofee tamit wan nañu ginnaaw Macky Sall ndax Benno Bokk Yaakaar daf ko daal di perte yéen kaay gi di réew mi quotidien ak L'As ak Vox Populi ak L'Observateur ñu koy fekk fa Déthié Fall mandataire coalition Yewwi Askan Wi nee na ay ndëngtey moo am ci élection législative ci diiwaanu Kanel Podor Matam ak Ranérou verbal xamante ni amul benn signature maanaam ñii ànd ak Macky Sall dañoo gonfale li nga xam ne mooy procès verbal yi ca diiwaanu Kanel ca Podor ca Matam ca Ranérou ngir nag sàcc li nga xam ne mooy élection yi maanaam fraude loolee duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg yéen kaay gi de la ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu neexul ba neexul waaye Benno Bokk Yaakaar dooleem wàññeeku na Macky Sall jamono ji est-ce que am na ay poids lourd Moussa Diaw di jàngalekat ci université Gaston Berger nee na Benno Bokk Yaakaar jamono ji ci fin de règne la nekk yéen kaay gi di ko di jeex ñu xëy fekk fa coalition Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko ñoom nag nee nañu seen victoire bii nga xamante ne am nañu ko duñu nangu Macky Sall ñi mu àndal di ko confisquer maanaam di ko ngardajo loolee mënuñu ko nangu te bu boobaa danañu jàkkaarloo ak Macky Sall Ousmane Sonko nee na ndaw ñi yéen déglu leen ñu rek déglu leen rek ay dëmboo ca nee na Macky Sall dafa bëgg a njuuj njaaj élection ndax dafa wax ministre Antoine Diome na ko lijjantil quatre député loolee moo tax Macky Sall ñi mu àndala maanaam dem ca diiwaanu Fuuta yokk li nga xamante ni mooy procès verbal yi maanaam indi ay modification ay falsification ci li nga xam ne mooy procès verbal yi ngir nag man faa am lu toll si ñeenti député Ousmane Sonko ci biir yéen kaay gi nee na lu jëm ci wàllum ne da ko bandom bi nga xam ne ñoo koy wax loolee nañu ko bàyyi ndax lii nga xamante ni moo xew ca Fuuta duy élection waaye askan wi nga xam na ñoo dëkk Fuuta askan wa fa yeewoo seen yoon nekku ci askan wa yeewoo Fuuta seen yoon nekkul ci lii Macky Sall ñi moo àndal ñoo nga xam ne mooy ay fraude waaye nag loolee du jàll yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu koy fekk fa Abdoulaye Sow bu benn bokk yaakaar nee na ñii nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan yi nga xamante ni ñoo ngi koy def loole nag a jàll yéen kaay gi di Vox Populi ñi nga xam ne ñooy waa secrétariat exécutif permanent bu benn bokk yaakaar maanaam ñoom ministre Mor ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax mauvaise foi bi nga xam ne moo nekk ci leader yi nekk ci coalition Yewwi Askan Wi ndax moom ministre Mor Ngom ak waa secrétariat exécutif permanent bu Benno Bokk Yaakaar ñoom nag nee nañu ñii nga xam na ñooy leader coalition Yewwi Askan Wi maanaam ci manipulation la ñuy dox waaye nag seen manipulation yi loole nag ci boppam mënut a jàll ndax lan mooy ndey bu coalition Yewwi Askan Wi gagné Saint-Louis ñu ne c'est normal su gagné Ziguinchor ñu ne c'est normal su gagné Oussouye ñu ne c'est normal bu gagné Bignona ñu ne c'est bokk yaakaar gagné nord bi fuuta ñu ne loolee fraude la loolee mooy lan mauvaise foi rek la mën a doona ñu xëy fekk fa Moussa Tine nee na nit bu jom jugee ci moom deseetul dara Moussa Tine Macky Sall jamono ji naka ñu ëpp ci askan wi bëggatuñu ko dafa war a démissionné Galas Kaltoom Mbàkke mi nga xam ne moom la benn Bokk Yaakaar jiitaloon ci département bu Mbàkke moom nag wax na nee na ñun daal def nañ le ñu man waaye lii la yàlla dogal yéen kay gi di Vox Populi fekk fa Khalifa Ababacar Sall nee na addu kalpe duñu ko nangu tey duñu ëllëg te loolee dafa war a leer ci bopp Macky Sall Ousmane Sonko nee na nag Macky Sall dafa war a xam ne maanaam mënoo dëkk di gagné rek mënoo dëkk di gagné rek loolee amul sax ci football ak lamb léeg-léeg da ngay perte Ousmane Sonko ne Macky Sall ci boppam moo war a xam ni yee la ndax nag am na loo xam ne maanaam du yëfu gor Macky Sall dafa war a am grandeur yéen kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu Abdoulaye Bibi Baldé directeur général bu poste moom kenn du moom moom njombe ci boppam la def ci élection moom Abdoulaye Bibi Baldé oto yi nga xam ne ñooy oto course yooyee la Abdoulaye Bibi Baldé jël doon ko campagne am na ci sax oto boo xam ne def na accident ba yàqoo mu Abdoulaye Bibi Baldé yéen kaay gi de xëy duñu xibaar naan ñi ñoo ngi wax ci élection yi rek waaye soble yokk na ba mara day tale yéen kaay gi de Les Échos si toor nduur mi nga xam ne moom la ñu tuuma la lu jëm ci wàllum a la jamono ji ma ngi ci guddi gu bët sadiku la procureur dafa wax ñu jël ko dugal ko ca kaso ba yéen kaay gi de L'Observateur nee na si na retour de parquet na xam ne moom lañ koy tuumaal bu dee dëgg la chambre criminelle la si toor nduur jëm de libération xëy di ñu xibaar naan ñu Sitor Ndour ba mbir mi xewee dafa woo yaayu xale bu jigéen bi di waxtaan ak mooma naan ko mbir mi nañu ko nëpp nëppal lépp lu ngeen ma laaj dinaa leen ko jox ndax man autorité laa ci dëkk bi te mbir mi bu siiwee man yàqu naa sama àdduna yàqu na nu ngeen mën a fexee ba jàppale ma rek na ngeen ko defa yaayu xale bu jigéen bi na ko man rek juruma ko dafa am baay ami mbok il faut ñu waxtaan ak mooma yaayu xale bu jigéen bi na ko waa dama lay laaj yow egg nga ci xale bi wala eggoo ci xale bi yéen kaay gi xëy duñu xibaar